Idrissa moko teru akim ñu teru ko misigal ko ko jine asaman nabi santren leen tarakaay borom gon tugee leen gon tarakaay ne ni yëg na benn app loolay mu ton sak jibil nesko mu fëgg juromel asaman asamaan Haaroona moo ko teeru ñu teru ko misigal ko yokkal ko jëne asamaan nabi sant leen gërëm leen tarakaay borom ngoon tigee leen gën tarakaay leen yëg na benn app loola langaan mu ton sak jibiril nestoot mu fëgg juróom benneelu asamaan Muusa ko teeru ak i malaakaam teeru ko misigal ko yokkal ko jëne asamaan nabi sant leen gërëm leen tarakai borom gon tikee gon tarakai ini nin yëg na benn app langan Mutan mu ton saak Jibril nestoon mu asaman ibrahim ñaareelu kateru Ibrahima moo ko teeru waxal ma dafa am télévision Dakar di fii te ni jigéen ñi toog ni dafa dama bëggoon ñu def rangé bu rafet pour bu ko jëlee mu mais gi na du baax waa fii dafa am ay caméra ngeen defar seen togaay bu koy jël mu mëna rafet yeen ak may télévision la yor yor TV la neena ni ngeen toogee yeen jigen ñi na gëna rafet ndax bu koy jël mu jekk lool tarakaayi ni yëg na benn app lay langan mu toon sa giwiril nesto mu asamaan mbay maa ko teeru ak i ko misigal ko rëkkal ko jëni asamaan nabi santu leen gërëm leen tarakaay borongonti gën leen gën asifi leylatal lati kaana lil إزهار كسر ذكر صلاة سوى نرت سوى نزرت سوى نرت سوى نزرت سوانور تودي ناصر الحق دينا سوانور تودي حق بالحق سما نصرت نتي موي تاريخ سه سما نصرت كتي دي تابي الجنة سما نصرت ناصر الحق دينا الحق بالحق دينا talxatil xakki ñi ci mooy tariixa bi ku ci de tabbe aljana ak yóbbaale say doom yóbbaale say su tii kër yi ku la may jabar dee ne tabbe aljana ko ca may jabar muy digg alijaana fokk nday yëkk mbaay si di diggante sa yaay diggante sa yaay si di ma Maodo ko wax te Maodo ay waxan def nii ci ma Maodo si jaxaay ay waxan du rëy de def ko tig fi wér téere yàlla téere bi alxuraan si di ak xadis yi teg sa ijima kon de Maodo am na lay yaa dundal sariixa ba yaa dundal xaqiiqa ba te yow Tijaan be la taalibe Seex ye yow Tijaan be la ku bëgg Sëriñ Babacar waaw ay Tijaan lañu ku bëgg Sëriñ Babacar waaw ay Tijaan lañu ku sopp Sëriñ Babacar waaw ay Tijaan lañu ku bëgg Sëriñ Babacar waaw ay tiijaan lanu aca mu saasi diin walu saasi daan ay tay ma way seen ma jo sëriñ Seex Tijaan góor gi ciir ku bey ay sëriñ Seex Tijaan yow tiijaan de diin boo julli suwa baa julli tiis waaw nga jël sa kurus jàng fatiha muy benn yoon siti astafirullah aziman lazim la ilaha illallah